billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa taabiin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bismillahi rahmaani rahim wal asri innal insaana la fi xusr lillazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokk yi fi teew yépp ñu leen nuyu nuyu jullit ñu yóbbu lislaam ñaan suñu borom subhanahu wa taala suñu barab yi bokk ci barab yi suñu borom gën a nangu ëllëg yoo mën ginnaaw loolu jël si rek comme nañ ko baaxoon defee muy ay bis yu ne ñu dajee si bërëb ngir fàttalikonte ci suñ jëmmi bopp yi ci suñ diggante ak suñu borom subhanahu wa ndax yitte yi bari na bëgg-bëgg yi waaye nag jamono ju ne nañ ci jël ay waxtu yu néew moo xam mu bari bàyyi yitte yëpp bàyyi soxla yi ci barab bu wéet ngir fàttaliku yàlla ak yonentum tedd bi ak Seexuna Ahmadul Xalil bi nga xam te ni moom la ñuy liggéeyal te nekk yitte ba yitte daj yitte ji ci gën mooy yitte joo xam ne koo jox yàlla kon nag lii barab la yu rëy yu am solo yoo xam te ni yooyu ndamu ci yeneen barab yu amul lii la ëllëg mën a xeex ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne doomu aadama bi jëf ju mu jëf gis na ko seede ëllëg barab yi it mu jëfee jëf yu baax ëllëg dinañ ko taxaw seede kon loolu lu am solo fàttaliku yi ñuy fàttaliku nag ci suñu diggante ak suñu borom nga xam ne suñu borom moo ko njëkk a wax jullit ñi ne dee ma fàttaliku fashkuru nii askurkum dee leen ma tudd boo leen ma tuddee man suñu borom subhanahu wa taala dinaa leen fàttaliku ci waxe nag day mel ni kon suñu borom dafay fàttali wala déedéet dafay wax ne nit ki buy fàttaliku boromam subhanahu wa taala di jëf ay jëfam suñu borom ci boppam day jëf ci moom jëf koo xam te ni fàttewu ko ci noonu lay jëfee moo tax mu wax ne faskuru ni askuru waskuru li wala takfurun kon day mel ni fàttali suñu borom muy dëgg-dëgg jaam yàlla kon nag suñu borom bu ñu dollee dimbali ñuy daje ci jamono ju ne di zikar tudd yàlla di ko fàttaliku ci julli ci yonent bi sa alayhi wasallam muy xasida yi ñu doon jàng ndax suñ sëriñ bi daf cee boole lépp lu baax bu ñu dajee jàng ko jàng nañ alxuraan julli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam zikar nañ lépp dajale na kon loolu barab la boo xam te nii dina tuuti wala des na ko tuuti ci zaahir waaye nag ci baatin barab bu kawe la kon nag fàtt gi ñuy fàttaliku suñu boom lu war la ndax suñu boom subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama wax ko ne kat bind ko ngir mbaa yàlla ci àdduna rek lu ko neex mu def wala lu ko neex mu wax déedéet dafa am lu mu sant ci moom am lu mu bëgg bind ko ngir ay fo wala dara afaasibtum annamaa xalaqnaakum abasan wa bindu ma leen ngir fo kon suñu bopp bindu doomu aadama ngir fo a jël ko mu xam ne ëllëg kat suñu boppam ci moom mu laaj ko bi mu ko bindee dénk ko la ko doxalee ni nga xamee noonu la waxee ne bi muy bind maam Adama alayhi salaatu wax ko ci alxuraan wa isqaa rabbuka lil malaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi xalifa nga xam ne dafa nang ma def ci kaw suuf doomu aadama loo xam ne daf koy wutu ci kaw suuf te loolu doomu aadama lay doon muy wuutu suñu borom ci kaw suuf kon loolu lu kawe la cër la boo xam te ni cërum doomu aadama waaye lu kawe kawe ndax ku wuutu suñu borom ci kaw suuf loolu lu rëy la bi mu waxee ne dafa fas yéene bind mbindeef moo xam daf koy wutu ci kaw suuf ويشغل ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ومن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم ما لم تسمع كلها ثم حلوا على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنت سالما فأسبحك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم nga xam ne bi mu waxee dafa bind mbindeef moo xam daf koy wër ci kaw suuf malaayka yi suñu borom dafa meloon doon diisoo ak ñoom donte suñu borom lépp ci jàngal doomu adama ni mu la dundee mu mel ne lu diisoo diisoo ak ñoom ne dafa bëgg ku ma wut ci kaw suuf malaayika yi tontu wax luñ wax ndax suñu baam da bind koo xam ne day ñëw ci kaw suuf di ko yàq di fi tuur deret ñun ñi nga xam ni dañoo dëkkee sàbbal la ak sellal la xeeti mel noonu waaye nag suñu baam xamal leen ne xam na loo xam te ni ñoom xamuñu ko ndax bind gi muy bind doomu aadama am na lu mu ci nam xamal aadama alayhi salaatu wasalaam loo xam te ni ñoom xamuñu ko mu teg leen ci kanamam jox ko ndigal mu jàngal leen biñ ko jàngalee ci lañ waxee ne subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa xamuñu dara loo ñu xamal yow suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu cëru doomu aadama la boo xam ne dafa koo teral teral bu rëy ci kaw ci ësël njëkk mu koy wàcc ci kaw suuf kon doomu aadama bu jëwee war naa xam naka la war a dundee ci kaw suuf loolu nag li koy maye mooy xam xam-xam mooy jàng xam cër bi ko suñu jox ak li mu war a tax ni mu war a taxawee ci kaw suuf mu mel ni àdduna kon suñu boom bind ko ngir ñu ñëw fi rek tasaaroo fi dafa dafa ko bind ngir ñu dundal ko mooy dundal àdduna cëm jëm àllaaxira ci jullit bi kon jullit bi ne war a xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ihmal li dunyaak ka annaka laa tamutu abada wa ihmal li axiratika ka annaka tamutu xalaa jullit bi dafa war a dundal àddunaam ba mel ni du fi mos a mel ni suba la fi jóge mu tënk lu bari ci doomu ni mu la dundee ci kaw suuf ndax loolu rek wax la joo xam tënk na lépp naka la loolu mën a nekkee jul bi dina dundal àdduna ci dundil boo xam te ni dina fi def loo xam te ni ëllëg mën na fee jóge ay at at loolu di dund ci kaw suuf loolu mooy dundal àdduna loolu lépp nag mu nekk nag loo xam te ni day jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala muy dëgg-dëgg dundal àdduna ci misaal nit ki dina nekk ci àdduna di tabax ndax li muy tabax moom dafay fas yéene tabax nekk bu fi jógee mu jeex déedéet day tabax ngir ëllëg mu amal njariñ yenn yeneen jullit yu dul moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jullit bi jaamu yàlla bi koy jariñ te gën ci ci ci jaamu yàlla gën ci tiyaaba yi mooy jaamu yàlla gi muy def mu jariñ ko waaye jariñ yeneen jullit moo ëpp jaamu yàlla gi xam ne nit ki daf koy def mu yem ci boppam kon nit ki dundal gi muy dundal àdduna mooy di nga gis nit ku tabax jàkk nekku ku ne moom moo ci julli moom dundal lislaam ngir bu fi jógee jàkk yooyu dund lislaam ji di dund loolu bokk na ci ci misaal lu mel noonu nit ki na tabax teen ndax la nekkul ne moom gisee koy ci naan waaye daf koy def ngir jariñu ci waaye ngir jariñ ci jullit yëpp wala ngir dundal àdduna di nit ñi nañ ñi ngi bay ñi ngi saxal ay garab loolu lépp nag ci luy dundal àdduna waaye lépp mu aju ci nag ci yéene ju sell ci yéene ju sell bi mooy mu def ko te yàlla rek tax ni nga xamee ne noonu la nit ki wala dundalee àdduna àllaaxira ba mel ne suba la fi jógee misaal nit ki buy dund di ab jullit kuy sédd yàlla ab cër bu ko leeroon ne suba dina fi jógee wala ginnaaw suba dina fi jógee yaakaar naa lu mu farlu woon dina ko yokk ci wéetal yàlla wéetal boromam balaa moo wuyu ji boromam loolu mooy dundal àdduna ba mel ni suba la fi jógee loolu nag ñaar yooyu lu mu tënkoo dina dundal àdduna ci kemt laay na waaye dina jox cër boromam subhanahu wa taala ci kemt laay kàttanam ndax buñ ne yonent bi saay saam ne nit ki yeew ki muus alkayisu man daana nafsa wax am ne li ma bax nekkul ne ki ñuy gis ci saahir muy jëflante ak nit ñi ci ak muus bu leen mënee nax nax leen bu mënee bu mënee bu leen mënee njariñal boppam rek lay itoo déedéet salaay salaam nee na ki yow mooy ki nga xam dafa nopp ba kanam ci àdduna waaye nag loolu doy bu xamee li ma baax dem mantu lépp lu muy jëf mi ci sóoraale ne ëllëg yow man xi am mi ngi ñëw loolu lu doy waar dina jëf kon nit ki ki yow mooy lu muy jëf mi ngi sóoraale bis dina ñëw suñu boom teg ko laaj ko li mu doon jëf nan laa ko sante woon naka la ko doon jëfee ndax ni mu ko doon defee noonu la wala déet loolu nit ki bu koy bàyyi xel lépp lu muy jëf dina ko jëf te na ko suñu Boroom subhaanahu wa taala bëggee di wax ne bi si way di wax ne ki jaam yàlla gi ko war a sellal sellal boo xam ne dafa war mi ngi jàkkaarloog boroomam mi loolu bu ko defee tarfatul xayn wala xetu dara luy tax mu génn fenn du yomb ndax dina xam ne kat kii ko digal ku kawe la ku tedd la ku màgg la koo xam ne ni dayoom ëpp na mu digal la tiim la li nga war a jaamu mu tiim la di la gis loolu yaakaar naa sa kéemtalaay kàttan nañ ko def ndax bu doon nit rek sa kilifa digal la taxaw sa kanam di la xool di nga fexee nam la ko digalee nga defee ko noonu rawatina nag toll ni suñu borom nga xam ne màggam kenn xamul nu mu Sëriñ Tuubaa nee na jëf noonu la bu fekkee nag amul daraja jooju nga xam ne moom mi ngi mel ni mi gis suñu borom na am nag yaqin bu moom suñu borom subhaanahu mi ngi koy gis loolu amut ganante amut dara laa taaxuzuhu sinnatun wala kon loolu dina dimbali nit ki ci dayo bu mu mu xam ni muy jëfee ak buy jëf fi mu koy teg xam ne tamit jëf gi muy jëf kenn moom ko dut kon loolu ba léegi day bokk ci li nga xamante ne day dundal nit ki ci lu ko jëmale ëllëg yamal xel gis nañu wax nag ne àdduna yoonu àdduna wala yoonu alaaxira mel ni ñaari yoon waaye boo defee ràññee tuuti day mel ni benn yoon benn yoon amut yoon bu nekk nii am yoon bu nekk nii ñu ne bii mooy àdduna bii mooy alaaxira benn yoon la benn yoon bi nag mooy jullit bi mu xam ne àdduna jaaruwaay la dafay ñëw di préparé wu ngir jëm ëllëg yamal xiyaam kon wenn yoon woowu rek moo fi nekk li mu am nag wuute ak ki jullit mooy ki du jullit day jëf ngir àdduna jullit bi nag dafa war a jëf ngir alaaxira mooy yéene li yonent bi saa saa wax ne innamal a'maalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa nit ki jullit bi dafa war a yéene ci lépp yéene ju sell mooy mu yéene loo xam te ni lii muy jëf kat yàlla rek ko moom mu jox ko ki dul jullit nag loolu du ko xool kon foofu la différence am kon nit ki mën naa nekk di dund mi mën naa xëy di jaay mën naa xëy di di yeno mën naa xëy di jàng français na xëy jàng na xëy di jàng informatique yu mel noonu yëpp waaye nag jàng gi mu koy jàng nekkul ne daf koy jàng waaye daf koy jàng ngir àllaaxira daf koy jàng ngir lislaam loolu nag nekkul ne kon dañ naan kon kooku mi ngi ci yoonu àdduna wala déedéet kooku mu ngi ci yoon wi nga xam te ni mooy yoon wi jëm àllaaxira mu ngi koy bàyyi xel ndax jëf jëm jëf ma ngi koy yéene ne lii kat jëf ko ngir àdduna waaye daf koy jëf ngir àllaaxira bu dee nag ku dul jullit moom mi ngi jëf ngir intérêt àddunaam ëllëg bëgg na ci lii ëllëg bëgg na ci lee jullit bi nag dafay jëf ngir yàlla loolu lépp ak jaam yàlla lay doon ci kon loolu mooy li teqale ñoom ñaar seen seen nekkul ni di dañ ne kii jaam yàlla mooy mooy ki jëm ki nekk ci yoon yoo xam ne moo jëm àllaaxira déedéet ki yéen jàng alxuraan wala mu nekk ci jàkka yi nangam ak nangam loolu nekkul ni ki nekk foofu tamit rek moo jëm moo jëm ci yoon kon day day wane ne alxibaada wal xidma liggéey jaam yàlla lépp nag ci yéene ci lay aju nit ki li muy yéene rek ci noonu lay yéegee noonu yoonam noonu la noonu noonu noonu lay noonu lay jëmee ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu lépp bokk na misaal ki defar oto yi ñuy yéeg bu doon ab jullit la mu yéene ko defar te yàlla tax ku xool ko tiyaab ju tonnal la ci am tiyaab ju rëy rëy la ci am ki defar naawukaay yi ñuy yéeg muy avion yi fekkoon daf ko ab jullit la mu xalaat ko defar ko yéene ko ngir jëmmi yàlla kooku xoolal tiyaab ju toll noonu muy am ni nga xam ne sahaaba yi jiitoo nañ ci lislaam muy jëf ci ñu daan jëf jëf-jëf joo xam te ni ñoo tax lislaam ci dund ba tey nga xam ne kenn mënut a jëfaat jëf jooju ku fekke woon jëf yooyu niñ rawee ci lislaam kon jëf jëla kon nit dina toll foo xam ne jëf gi muy jëf ci jamono ji mu koy jëfee jëf jooju daraja ju toll noonu lay am kon loolu doomu aadama war na koo bàyyi xel xam ne àdduna moo koy dundal suñu borom moom la ko dénk na ko dundal na ko waaye na ko def aw jaaruwaay boo xam ni ëllëg yamal xiyaam di Sëriñ Tuubaa wax ne àdduna na nga jëf wax man na nga jëf alla na nga jëf àllaaxira kem la nga fay saxe la fay saxe ni nga xam ne àllaaxira sax waay bu sax mooy li mujj nga jëf ko ngir loolu ni nga xam ne àdduna jaaruwaay la na nga jëf ngir loolu wax man li uxraa xadra ma tabxaa fiiha nga jëf ad àllaaxira kem lu toll ne la nga fay saxee da nga jëf àdduna yi lu toll ni nga fiy sax loolu nit ki bu koy bàyyi xel na jëf-jëf ju ñoŋ joo xam te ni ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dina ko ci gërëm kon loolu lu jar a bàyyi xel la te sëriñ Tuubaa ci noonu képp ya la jaaroon ci yoon boobu rek la jaaroon ndax gis na joxe misaal bu gàtt sëñ Saliou Mbacke radiyallahu anhu mi nga xam te ni mujj na fi ci doomi sëriñ bi daana jëf-jëf yoo xamte te ni dem na ba toll ci mujjug jëf-jëf yoo xam ni da ngay ne lii muy jëfkat kat njariñu boppam tax waaye njariñu mbindeef yëpp la njariñu jullit yëpp la rawatina murid yi ndax maa ngi jële ci kilifa bu baax ci waa ahlu Mbacke bu may wax la mel noonu ni mu daan dundalee jamono di wax ne sëriñ bi biñ fi nekkee ba am quatre yu teg nga xam ne dem na ba nga xam ne boo ko gisee di nga xam ne kii bu ne la woon suba la fi jóge doone déedéet waaye mu naal ca ca noonu lay naalee naal yoo xam te nii rëy na rëy goo xam ne ngay xam ne lii muy def kat mooy dundal àdduna ngir àllaaxira loolu jàngale bu rëy li ci def kon loolu mooy royuwaayu murid yi loolu nag naa ci joxe misaal ci lu mel ni li ñuy def ñu ci la bokk ñu gën koo bàyyi xel ndax liggéey la boo xam te ni lu baax la te sos gi ñu ko sos di ko dundal lu rëy la ndax foofu rek la jëm ñu ñaan te di suñ kemt laay kàttan di ci def lu ñu man waaye nag lépp te yàlla tax nga xam ne ëllëg na dem ba suñuy sëtaat sëtaat di ko doxal te boobaa lii lépp daf ñuy fekk ci fañ nekk ndax cosaan li ku def lu baax cosaan lu baax loolu foo mënte nekk na la fekk ku defee ni safa safaan it noonu kon lii lu jar a bokk lu jar a bàyyi xel ndax lii yëpp ci jëf la yoo xam te nii day dundal doomu aadama ci àdduna mu mel ni jógewu fi kon jar sant yàlla lañ ndax suñu boom mi ñuy dimbali di ñu kàttan na ñu ciy teew ndax du me du du kàttanu doomu waaye nag dimbalu yàlla ndax di gis ku mel ni yow du mun fee teew mënut a teew ci lu mel nii kon bu la suñu boom dimbalee na nga xam ne kon suñu boom kat daf laa boole ci ñi nga xam ne ñoo na la texe ëllëg gën a góorgóorlu sant yàlla ñu ngi wax ne waxtu dafa xaw a gàtt waaye lépp yàlla nañ ko suñu boom nangul doolu ñoo kàttanal doolu ñoo dimbali waaye saxal ñu ci kii ñuy liggéeyal nga xam ne sunu xol suñu xalaat su lépp suñuy bëti biir ak biti lépp na jàkk jàkk ci moom mooy Sëriñ Tuuba buñ ko defee nañ texe ci àdduna texee bu ñoŋ ak àllaxira gay njëm ndax moom kat ku doy ak waat la ku koo xam ni tey buñ doon ne dañuy xool ne ay taay ay taalibeem nañ waruñu koo nekk buñ doon xool dara jaam rek waruñu koo nekk kon nag dimbalu yàlla la moox ji sar la ci yonente bi sallallahu alayhi kon nag nañ sant yàlla te gën a laxasaayu lii nag ñuy soññ lépp ci suñu jëmm yu xeeb yi lañ ko tàmbalee ci lañ ko tàmbalee de fas yéene koo jëfe suñu kemt laay gàttal yàlla nañu yàlla doolee dimbali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi jégal ci kàddu yi nag ci ñu mel ni seen xaalis ñi fi toog xam daanaka waruñu woon a wax waaye nag dañuy tañox rek di dem waaw ah, kon nag ñi ngi ñaan rek bu am doole ñoo dimbali